di ko santaat bu baax ci dikkam gii xam nan bu baax bis bii ak li nga bàyyi ci programme ngir yàlla akuk taalube waaye ngir yàlla akuk wóllëre sëriñ Basiir mii ba mu lay woo maag mooma ànd nga ni ko nu ma mel sa baaya moo ma gisoon ba ma kenn gisul moo ma yar moo ma jàngal def ci man li ne ci man wëlbatiku jël doomam ndox ma ko nga am gor googu ba yokk sa wutur maxtaar ku wax ni sëñ Gana yokk sëriñ maxtaar loo am Serigne Maxtaara noo mel Serigne Modou Maxtaara waaye ndokk bi nga xamante ni sii ni ma ko waxoon ci bëccëg booy wër gore da ngay dem kër fàtte yow fàtte woo dara bi la Serigne Bass boo waxee nga ne ko lu ma jàppoon bàyyi naa ko du ma jël benn avance ban heure nga bëgg ma ñëw ak noo bëgg ma defe ko ni bërki dem nga ko mujje woo ne ko fu programme bi toll ak ban heure heure laay ñëw kon ñu ngi lay santaat ci turu Mouhamadou Dan Fall ak rakkam yépp di wax ni lii nga def for na ñoom noor di santaat Serigne Saliou Seck alxuraan mi fi jógee Serigne Saliou Samb moom it fi lay yendu moo waxtaan cérémonie officielle bi Serigne Khadim Gueye moo jàng bi ñu tëjee xatmi bi ba noppi Serigne Mandak Gàkku kër gi sa kër doom nga wóolëre nga ci kër gi lépp nga ci kër gi programme bi yaa ko moom dañuy wax ni ku am gan tëraat yi waaye bi ngay bàyyi kenn doroyul di santaat nag bu baax mbokk yëpp kon Serigne Gana euh, bismillah aouzu billahi min alsheytani irrajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعونك يا معين بك نستعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yépp màggale ko di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yi ak mbooleem jullit yépp di nuyu bokki dëkk bi mbokki Touba Fall di leen ziyaara bu baax di jaarale sunu nuyoo ci Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Makhtar sëriñ bi noo ngi jël nuyoo kilifa yu baax yu tedd yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak ñu ne ci jataay bi yépp di ko teg ci sa loxo di nuyu it euh, sa kilifa yu baax yi nga xam ne euh, di nuyu it sa kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi ñoo ngi jaarale nuyoo bi ci Serigne Mahmoudan moom it mu jàllaleel na nuyoo bi ci kilifa yi mu bokkal dëkk bi bokk ak ñoom bis bi nuyu sëriñ Moodu waaye di ziyaara bu baax soxna Kumba Fall di ko ñaanal yàlla sunu boroom gën koo dëgëral kàttanal ko ba lépp lu mu yéene te njaboot gi yéene ko ñu jëf ko mu fekke ko nuyu ahlu xasaayid yi di yépp mën nañoo jaarale ci sëriñ ma ndax gàkku bi nga xam ne moo wàcce kàddoom léegi ñu di ko jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla ci barke gudd gi barke xaside yi mu doon jàng yàlla suñu boroom gën koo kattanal di ko jaajëfalit bu baax a baax sëriñ Saliou Seck mi doon daaneel kàddoo moom it noo koy nuyu suñu rakk sëñ xaadim noo ngi leen di nuyu baax mbay di leen jaajëfal euh, ni nga ko waxee rek sëriñ <coughs> siiru day sama doomi sëriñ ba noppi it ma seetlu ci moom ab yar ak i teggin war ma moom lu bokk ci sëñ dama la koy jox waaye roy topp moom ku jub laa koy def ak ku tege yoon ma yor ay nopp yor ay gët di xool te ne ci dëkk bi waaye déggaguma loo xam ne buñ ko nettalee tudd Sëriñ Bachiru maam ci kersa ngeme kilifteef léegi bi mu àndeek ak waa daayira bi ñëw di nuyoo léegi rek lañ seere ñoom ñëpp mooy toogul di nu joxañ waaye daa ànd ak nun liggéey bi at mu jot daanaa ñëw ci at yii di ñëw kër sëriñ Mahmoudan moom it di ko jaajëfal bu baax ci yitte ji sëriñ Cheikh Ndiaye noo ngi leen di nuyu waaye ren moom daaw sax la jëkk daaw la ma sëñ Basiiru gën a sonal ci bëggoon lu fekkee jataay bi far yàlla dogal mu fekk nu waxtu yi daaw ci waxtu wi noo ngi ci barabu yonent bi alayhi salaatu wassalaam àndoon ak Cheikh Abdou Samad mu sëriñ Chouaïbou léegi bi may génn laa wax waa daayira bi ne leen xam naa sëñ bi dinaa ko jox numéro boo xam ne bu subaa moom moo leen di woo rek ndax nag ndigal laa jàppe ñëw gii ma ñëw fii ndigal laa ko jàppe ndax baayam laa yaakaar jox ko sama bopp kon buñ ko gisagul lu bokk lu gisatul lu bokk ci moom rek koo ca gis rek mooy sa bunt mooy sa kilifa kon sëñ Basiir loolu moo waral nu ñëw fekk si la ci jataay bi fekk si fi nag bokki dëkk bi yépp ndax loo ko bëgg-bëgg bu ko ñi ngi ko seqal yitteewu wutoon du mën a sotti kon ñoom it noo ngi leen di sant bu baax ci fekk si gin la fekk si ak yooyu fekk gi ngeen leen fekki ba jataay bi mën a am guddi gii nag dafay guddi goo xam ne xam naa ku ko xam danga ko jox yitte bu baax a baax ndax amul benn demande boo xam ne ab jaam dana ko ci dugal mu jëm ci boroomam ci sàkku yiw walla njëggal te suñ borom du la ko defal ci darajey borom guddi gi di yonente bi alayhi salaatu wasalaam kooku nag ku toog ci ab jataayam bu ca toogee waxtu bu ca toogee ay neen booy déglu xasiida yaa ngi koy dundal booy déggal sikrullah yaa ngi koy dundal booy wax julli gi gën a gàtt di sallallahu ala muhammadin it yaa ngi koy dundal ndax ay yiw la ay ngëneel la ay tiyaaba la bëgg saaliwu maa ngi lay nuyu mu mel ni guddi la goo xam ne ki ci wàcc di yonent bi sallallahu alayhi dayo bi ko suñ borom jox ak maqaamam mi mu ko jox tax na ba lu ci ab jaam sakku ci aw yiw yàlla borom bi subhaanahu wa taala nangul la ko ndax dafay mel ni topp yàlla moo gën a jafe te borom bi subhaanahu wa moo wax ne képp ku topp yonent bi sallallahu alayhi topp na ma man yuti ar rasul faqad ataa allah te boo toppee yàlla te jaarewoo ko ci yonent bi alayhi salaam suñu borom da ko nangu muy koo xam ne it boroom bi moo ko waxoon ne ko waxal jaam ñi ne leen buñ bëggee ma bëgg man yàlla baa ñu bëgg ma bëgg leen nañ la topp yow muhammad qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah loolu muhaasib yi di wax ne suñu borom dafa jël ak toppam lënkale ko topp yonent bi sallallahu alayhi wa mooy borom daraji ji suñu borom ne wa ma aataakum rasulu fa xudu wa ma nahaakum mu fantahu lépp lu leen yonent bi indi salaahu salaam digal leen ko na ngeen ko def waaye lépp lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi moo tax nit mënta bëgg yàlla te toppul yonent bi salaahu salaam moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne inna mahabbatal ilaahi la tunaal illa bi xafil Moustapha babi nawal Sëriñ Tuubaa nee na bëgg yàlla kenn mënu koo am ci lu dul roy yonent bi sallallahu alayhi wa kon topp yonent bi ci la ñuy amee ak bëgg yàlla yonent boobu nga xam nag sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa boo demee ci xasidaam bi ñu tudd almashrabu shaafi nee na ci dara darajaam moom yonent bi sallallahu alayhi ci moom moo tax yàlla bind malaaka yi bind nit ñi bind jinne yi bind mboolem jamaadaat yi nga xam ne gàncax gi ak garab yi ak géej yi ak asamaan yi lépp yàllaa ngi ko bind ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne lu ak leer leer leer boo demee ci biir xasida googu danga fekk Sëriñ Tuubaa di wax ne ab jant ak li muy leer leer weer ak li muy leer leer biddiw li muy leer leer seen leer googu mu ngi bàyyikoo ci leerug Mustafa sallallahu alayhi mi sallam min nuurihi kullu nuurin saatihun bi sana nuuru nujum wa nuuru samsi wal qamar xoolal jant bi ni mu leere xoolal jant bi ni mu tànge xoolal jant bi ni mu réye leeram gi mën a gand jamono man koo matale Sëriñ Tuubaa nee na leerul jant bi nag ci biir leerub Moustapha sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko yonent boobu nag alayhi salaam nga xam ne képp ku di topp di la roy mooy ki ci gën ci mat a topp mat roy fi bu ñu woote woon bisub sant Sëriñ Tuubaa misaal benn war ma joo joxe ca guddi ga bu ñu ne bisub màggal gan jamono ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga defaat junni ndax lan yonent bi sëriñ Touba nee na yonent bi sama sëriñ sëriñ Touba nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga mën ngaa fonk sab sëriñ mu toog ci kaw nga toog ci suuf mën ngaa fonk sab sëriñ mu toog ci kaw basan nga toog ci suuf sëriñ Touba nag nee na yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi moom buñ langoon du ma taxaw duma toog waaye ndëggul dàllam yee ca laay roof sama lex bi man xaadimu rasul xaddi jaaltuhu turaba naxlihi yaa laytani lahidani bi fadlihi xoola kooku dayee bi mu jox sallallahu alayhi wa nee na sama lex bi laay laltaay ca ndëggul dal li yonent bi alayhi salatu wasalaam sëriñ Tuuba yonent boobu sallallahu alayhi bëgg gi ma ko bëgg moo tax ma fàtte bëgg leneen lu dul moom lu waroon a am place ci sama xol muy alal walla muy njaboot wala muy wurus wala muy xaalis wala muy jamaa lu mën a doon sëriñ Tuubaa nee na bëgg gi ma bëgg rasulullahi fàtte loo na ma bëgg loola bi man bi xobbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xeela kon bëggatul dara lu dul alayhi salaatu wasalaam yonent boobu nag yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi ko jiital ni mu ko matale ci bind nga xam ne bind bu mat ni mu ko matale ci bind la ko matale ci jikko nga xam ne lu ab jaam rafet rafet lu mu taaru taaru yonent bi salaahu salaam moo ko gën a taaru waaye taaram ba nag la muy mat mat ci ab bind noonu la jikko jomel waxu akmalul wara xalqan wa xulqan zahara xam ne ni jikko ji mel noonu la ni bind bi mel ni la jikko ci mel yonent bi salaahu salaam moom la suñ borom joxañ ñépp na na ngeen ko roy walakum fi rasulillahi uswatun hasana lu tax yàlla ne na ngeen ko roy moo dajale mbooleem ngëneeli ko yépp moom la borom bi kañ Sëriñ Tuubaa dane yonent bi salaaw salaam nan la ko mbindeef mën a tee tagg ndax yàlla mi nga xam ne moo ko sakk moo ko tagg kon kenn mënatul tagg yonent bi alayhi salaatu salaam dal na jéemu mu ko tagg nag ngir peeg lépp lu mu làmboo walla xam li mu yor ci daraja waaye dama koy peeg ngir tudd rek dama koy kañ ngir tudd ngëneel li nekk ci yonent bi alayhi salaatu salaam daan na ñépp ci lot way tagg yi lakin wana dëhër an am da ay shuara way shuara yi mooy waykat yi sëñ Tuba nee na taxaw ci suuf jël sa baaraam laal ko ci asamaan ni mu jafee noonu la jot tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam jafe nga xam ne ñépp a ci tagg alayhi salaatu salaam ni ab jaam lotte ci jël baaraamam taxaw ci kaw suuf laal ci asamaan si noonu mu ko téye noonu la tagg yonent bi na ci ñëpp lotte ndax maqaamam mu rëy moom mu amee mu ne mooy koo xam ne yonent bi alayhi salaatu wana kullu siilmin wa saayin wa rubbatin an il mustafa fi xalqihi al xaaidul bi boroom xam-xam yeeg boroom daraja yeeg ñëpp a lott ci tagg yonent bi ci mën a làmboo jot lompañ nañ ci jot jikko yu mat yi ko yàlla jagleel borom guddi gii boo doon xol lewet mën a muñ njàmbaar dund ay coono ci àdduna doo gis ku ci jaar fi yonent bi alayhi salatu salaam jaar guddi gii muy feeñee ni ko yàlla terale alayhi salatu salaam moo tax Sëriñ Tuubaa dane guddig gàmmo muy guddig feeñu rasulullah mooy guddik far bak far bakkaar far sikk guddik mucc guddi tonewu guddi gii mu doon feeñ ña gën a sori ca penko ke saw dañ daan séenante bis bi muy feeñ moom alayhi salaatu salaam lu wexoon dafa soppi ku neex garab gu waroon a am ay doom da nëtëx ngir ñor muus bu gisee janax du ko jàpp ak dég du jam nit dara du xew dara yënguwul ndax ki war a feeñ di muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam at mii mu feeñ it bi alayhi salaatu wasalaam yàlla tereel na ko atum yonent bi genn jigéen judduwut te sëñ Moussa Ka wax naan lu judduy góor jigéen judduwut nga xam ne jigéen judduwul ci at mi yonent bi feeñ jamono lu feeñ rek góor lay doon ngir terale ko ki war a wàcc ci kaw suuf di Moustapha sallallahu alayhi wasallam yàlla tànnal ko askan woo xam ne it Serigne Touba te léegi-léegi nga dégg fii ci Sénégal ku ne yonent bi daal ay maamam wala ay nangam jéggi sëñ Tuubaa nee na yonent bi ay maamam ñépp ñu baax lañ ay sang lañu sëriñ Tuubaa nee na yonent bi yàlla defal na ko ay bokkam kenn mus caa daje góor ak jigéen lu dul dañoo takkante ki seen biir la tàmbalee cay maamam ba wàcc ci Abdullahi mi baayam sëriñ Tuubaa nee na ñëpp ay tànneef leen moom alayhi salaatu ba mu feeñee ci kaw suuf guddi gii suñ borom terale ko taraanga joo xam ne abu lahab nga xam ne boo demee ci alquran di ko jàng fekk ca tabbat yadda abi lahabin bisub altine bu jot bu nekk mbugalum abu lahab dañ koy teggi ndax goreel gi mu goreeloon jaam keroog bi rasulullah ganee jamono kon ku màggal guddi gi lan nga war a am ku weddi yàlla weddi rasulillahi te boo jàngee saaru tabbat yi daa xam sababu nuzul bi xam lim demee xam ne ku yàlla tëkku la béccingeele ko doyedal ko génne ko waaye saa yu guddi altine jotee mu terale ko mu génne ko ci sawara teggi mbugal mi ndax yonent bi alayhi salaam mi mu béggoon keroog bi mu feeñee jamono ba goleel ab jaamam yonent boobu suñu borom nag may ko daraja yu rëy ak maqaama yu mag bi mu daataan feeñ adduna bàyyam génn na jamono abdoulaye fekkante walug rasulullah ci kaw suuf kon dafa feeñ amul baay ab diir amina mi way juróom ci juróom benni atam mu génn àdduna ana moo ko yore abdul muttalib ab diir mu génn àdduna yonent bi nekk jirim boo xam ne wéradi ak wér ci ay way jur gaar na ko ci wet gu nekk waaye borom bi subhanahu wa daf ñoo identifier alayhi salaatu wasalaam ci biir alquran wadduhee jàngal nu ko ba mu leer maa waddaak rabbuka wa maa qalee wala al axiratu xayrun laka min al ulee résimeel ko nag fi mu ko fekk ak fi mu ko jëlee ak fi mu ko féete alam yajidka ko fa hawee wajadaka daalan fa hadee wajadaka ailan fa aghnee kon yàlla rek moo ko soutenir fekk ko ci ak wéet fekk ko ci tumuranke fekk ko ci ñàkk ay wayjur mu tabbal ko ci aw askan ba noppi waajal ko wàccaay wu rëy tam nekk ko soli lépp yonente boobu dund dundin gu metti nga xam ne sàmm na yaxantu na daana sol yéeroo yu ràpp ak yu nu laax moo tax léegi-léegi ñu naan la sun na sun na te sunna su yonent bi roy ko ci julleek sëlmal rek yomb na waaye roy ko ci jikko yi mu yoroon moo jafe te yonent bi ku koy roy da koy roy xalqan wa xulqan da ngay roy doxal doxan comportement bi mu amee woon da nga koy roy waaye da ngay roy jikko yu sell yi nekkoon ci moom la muy baax baax moom alayhi salaatu wasalaam daana toog ñetti fan ci këram mburu mu jëfandikoo du ko am yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal fi mu jaar génne nañ ko mag gàddaay na dem na xabasha dem na taif xoolal yërmande ji alayhi salaatu wasalaam lamboo kere bi mu gàddaayee ñu di ko sànni ay doj di ko sànni ay góor ak jigéen di ko yuuxu ba tànk yonent bi salaa salaam réexe fees dell ak deret ndax doj jin koy sànni di ko bravo suñ borom yable na bu ko neexee ne ko ñaari montagne yi ma boole leen léegi ñëpp alko waaye lan la yonent bi wax ixfir lahum fa innahum xawmun laa yaalamoon yàlla baal leen dañoo xamut bu ñu xamoon ki ma doon ak li ma leen andil duñ ma def lu mel nii moo tax gis nga bi ko borom bi di tagg fa bi ma rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fazzan xalisal qalb lan faddu min xawlik li tax ñu di wër foo ñu wër la sa baax gii moo ko waral yow rasulullah yàlla ko kañ boo doonoon borom xol bu dëgër doon ku soxor doon kuy foññ foññi kenn du la wër wet gu nekk waaye sa nooy geeg sa baax gi moo tax ñëpp di la wër moo tax Sëriñ Tuubaa wax ci raa yéene rasulullah sallallahu alayhi wasallam de boo koy wutalum kem loolu natt moo ko raw xasida googu da ko cee portale portale yu jekk caw junjiinu waxiin lil badri nuurun azimun yustanaaru bi lakin ida lam yakun li shamsi izhaaru Sëriñ Tuubaa nee na weer bu fekkee ba toll ci fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom leer nañ waaye lu leer leer bu jant ñëwee rek biddiw dem pax kon lu weer leer leer bu jant ñi ñëwee biddiw faddu weer faddu kon lu waay baax baax bu rusu lay ñëwee nga dellu gannaaw mu misaal ko ci diggante weer ak jant misaal ko ci teen yakunu lil biiri maun taaba mashrabuhu lakinahu min xalijil bahri aqtar ab teen dana fees ba ku sànni sa goj sa baax fees waaye Serigne Touba nee na bu ko natt ci géej de boo ko nattee ci géej de mu doon ci ay toq kon teen lu mu fees fees géej ko ëpp ndox mu ne koon géej ga mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne boo duggoon cib tool lil xas bi tuulu la daa ayni laha nadarat ida xawlahu lam tadba ashjar boo duggoon ci ab tool gattax ga jo jolli ca kaw la gattax gay gudd gudd boo xoolee ak ron ca wet ga moo koy sut kon lu bant gudd gudd lu garab yëkkatiku yëkkatiku ron a ko sut mu ne mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam daan na kooku sax fala taqis ibna abdullahi bil fadala yonent bi doomi abdullahi ji bu leen ko dendalee kenn daan na ku sikk sàkk ne rasulullahi moo jiitu man shakka fii taqdimihi fa jahilun wa xaafilun wa jahilun wa zahilun Serigne Touba nee na ku sikk sàkk ne yonent bi moo jiitu réer nga dof nga alku nga dal na yonent boobu nag muhammadun zinatu dunia wa laddatiha bànneexu àdduna mooy rasulullah taarub àdduna mooy rasulullah yi sëñ tubaa ne na gaay yu baax ci yonent bi lañ taaroo sëriñ tubaa ne na man tëkkuma gànjar muy wurus baa or waaye sama taarub zahir sama taarub batin mooy doon gi ma doon xaadimu rasul ak roy gi ma roy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zinatu zahiri wa batini maa kaw nii xaadiman lahu mutabaa li ma doon xaadimu rasul mooy sama gànjar man seriñ Touba Serigne Touba nee na yonent boobu nag dama ko sopp sopp goo xam ne xoolal doom ni mu neexee ci xol xoolal alal ni mu neexee ci xol Serigne Touba nee na lépp dañ nekk sama xol ndax Muhammad rasulullah mahat mahabatiyal muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada te loolu ndax da koo wax noonu rek waaye ba mu nekkee ca géej ga wax ne bëggatuma doom bëggatuma alal ndax rasulullah wax ne gisu balaa al ankabut jéggi naa natt yu ankabut yi borom di wax ahasiba nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun la yàlla tawatal ak njabootam booba mu bàyyi fi ak njabootam dem ci géej gi Cheikh Mahamadul Moustapha tawat Serigne lu tawat Cheikh Mahamadou Lamine Bara tawat Serigne Mahamadou Yadali génn àdduna nga xam ne ñaanul ngir Cheikh Moustapha wér wala mu ñaan ngir sëñ lu wér wala mu def tawasul ngir sëñ Mahamadou Lamine Bara wér waaye dane Mouhamadul Moustapha mi ngi ci loxoy yonent bi Mouhamadul Fadal mi ngi ci loxoy yàlla Mouhamadul Lamine mi ngi ci loxoy alquran te tawat jooju moo waraloon maam nu julli ñaari raka ñaan boroomam bu sëñ Tuubaa naree ñëw mu koy laaxat njaboot gi naa ñàkk sama bakkan maam Cerno Ibra Fati wala ma ñàkk bakkanu soxna Fati sama ndey wala sëñ mu Awa Balla wuute doomi Sëriñ Tuubaa des fi lam leble woon ci bëgg yonent bi alayhi salaam loolu lañ ko fayat ci melokaan woowu mu ne yonent bi sallallahu alayhi bëgg gi ma ko bëgg muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaai wa raaxati fu ma nekk lu ma wéet wéet bu ma déggee turu yonent bi rek wéetliku na lu samay cër lompañ lompañ bu ma déggee tur yonent bi rek samay cër wéraat na sama xol naat na samay leer gën naa dolliku yonent boobu nag mooy koo xam ne bu ma tawatoon man Serigne Touba bul ma tuddal dara bul ma wutal garab bul ma tuddal doktoor waaye tuddal turu rasulaay boo ko tudd rek ma wér daal di wax ne sama dund gi nag danaa ko jeexal ci di ko sant moom yàlla waaye di liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bokk yi xoolal bëgg yonent bi ba wax ne bu ma àndoon ak sallallahu alayhi muy dox ba yàgg ma séen ak dégg bëgg a jam tànkub rasulullah baa ma seen jaan bëgg a matt tànkub rasulullah baa ma seen jiit bëgg koo fet Sëriñ Tuubaa nee na duma rey jaan ja du rey jiit ja du toppale dégg waaye sama lex bii laay jël dëpp ko ca jaan ja wala ca dégg wala ca jiit ja jiit ja di ca fett jaan ja di ca mat rasulaay joggi ca beneen tànk ba beneen lex ba jàll xaddil wiqaayat lii rijli mujj tabaa min shawkatin wa ma yudaha aqraba kon loolu li muy wane ak li muy tegtale mooy jeex gim jeex ci alayhi salaatu wasalaam ba mu jaral ko ne bu fekkoon ne yonent bi salaatu wasalaam kat am na lenn lu may xool wala lu may dox la may def mooy damay jël sama lex bi dëpp ko ci la bëgg a lor alayhi salaatu wasalaam loola di ma lor egg ci wax ni shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rab liy faj sama jëmm sama yaram liy faj sama xol mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent boobu nag Sëriñ Tuubaa da koo jàngale ci melokaan wu nekk wax naa la léegi lewet ga boo demee ci raa yi indi na ko lahu min alxelmi maa lam yahwihi jabalun laaxal ataa fil baraya wa huwa sabar yonent bi salaa salaam Sëriñ Tuubaa nee na ab montagne li muy mën a muñ muñ li muy dal dal rasulullah ko gën a dal waaye xoolal yonent bi nim meloon ci jikko ju rafet ak melokaan mu mat Seydina Omar ibnu Xattaab ñaareelu xalifa bi yonent bi alayhi dafa ànd ak bi am kuy yu bor yonent bi alayhi salaatu salaam xëcc mbub mi ba buumi baat bi di xeral yi sallallahu alayhi salaam Seydina Omar tàmbali rocci jaasi ji yonent bi ne ko déedéet danga may wax ma fay ko nga jàngal ko teggi ne fayu bor man mii ngay wax ma fay nga jàngal ko teggi ni fay yu bor xoolal jikko jooju ni mu nekk ci mu si na Omar doon na xalifa bu yonent bi di dugg ci jàkka ji benn waay tëdd ci jàkka ji ci guddi gi Seydina Omar joggi ko waa ji ne ko a anta ximaar ndax yow mbaam nga xamul ku mu doon de daa jékki-jékki ne ndax yow mbaam nga mu ne ko laa bal ana Omar man a Omar kenn Seydina Omar na ko yaa amirul muminin déggal kii naan la mbaam nga Seydina naa na ko déet fu ma fi waxee nga dane ma ndax mbaam nga ma ne ko mën a Omar ana fan laa fi doore mbaam xoola googu man loolu war nañ ko jàng fi ne tey boo ne woon am na ko ne rek li xew ci àdduna dagg kole fi ne boo ne woon kilifa day nangam suba kilifa goo jort duñ la koleeg moom moom lañ lay koleel te fekk taxoo koo jóg taxoo koo wax bu amul nag tarbiyatu rabbani yi boobu ca lay mën a jàppe ne kii li muy wax ci moom la jëm fekk demewu noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna Fatima doomam mu bëgg ko lool dafa am bis muy foog Seydina Ali borom këram wax benn baat bu diis tontu ko Seydina Ali Seydina Ali du mooyu ko won ko ginnaaw Seydina Fatima raam juróom ñaar fukki yoon bi jéggul Seydina Ali te mooy borom këram di doomi doomi rasulullah Seydina Ali jéggal na ko waaye Fatima day jooy ba kanam gi ñëgg bi mu xëyee ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi na ko yow sama doom lu la doon jooyloo biig loola doon jooyloo mu ne ko biig dama doon foog Seydina Ali ba juum wax ko baat boo xam ne xam naa ne soge na ko jéggalu naa ko juróom-ñaar fukki yoon nag waaye dama wóor baal na ma wala baarum lan la ko rasulay ton wala si baasani bil xaq nabiya maa ngi giñ ci yàlla mi ma yónni ba yonent bu la sa sa boroom kër boobu jéggalu toon baa boo faatoo man sa bàyyi du ma la julle man rasulullah bu la sa bàyyi bu la Seydina Ali jéggalu boo faatoo duma la jullee keroog bi ma faatoo ñu teg ko ci kuusu bàmmeel Seydina Aliyu moo moo jàppoon ci jat gi Asan ak Useynu ak ku nekk Abu Darin al-Xafaari yi Abu Darin al moo jekki-jekki na bàmmeel eh yow bàmmeel gan gu mag ñëw ci yow doomi Mustafa bàmmeel soxla si Aliyul Murtada yow bàmmeel xamal ne ki ñëw fi yow tey mooy doomi ah, doo mooy bàyyi mooy ndey Asan ak Useynu kon nag bàmmeel tey xamal gan gi am xam ne suuti mu dégg kàddu gu yëngu ci biir bàmmeel na ko ma ana bi mawdi hasabin wa nasabin wa innama ana mawdu amali saalih fala yanju minni illa man salaw amalu man du ma bérébub dooma askanalante diw a jur ju sell la ku sa jëf sellu doo mucc ci ma xoolal sayyidatuna Fatima moom ndimbal ñëw na ne yonent bi baayam dama bëgg nga wutal ma mbindaan di ma ko fayal ndax sayyidna am na xam-xam am na daraja waaye bëriwul wërsëg yonent bi ne ko kaay ma jox la lu gën àdduna ak li ci biiram yàlla wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa laa wax na bis ne maa ngi giñ ci yàlla ne sama doom faatima bu sàccoon ma dagg loxoom te moom yonente bi alayhi salaam ci mandu téefam ak melokaan yu ko yàlla bindal ak doxinu wu sell yu mu doon dox doon koo xam ne dundam gi li muy gàtt gàtt lépp ci coono la ko dund ak fitna dund ko ci tartar waaye yërëm aw xeetam Serigne Touba nee na ci xasida gii mashrabu safi bu yowmal qiyaamee mboolem yonent yi kenn ku ne nafsi lay wax saa bopp laa tal si waa ahmaduna ba mu des rasulullah li muy wax irham ummati yow yàlla yërëmal sama waxeet ma sax dañoo wax ne bu yomal qiyaamee mun jëlee siraat gàcc ko ci jahannama juróom-ñaar ay càlla la tënk sawara muy battar ñi yonent bi day taxaw ca ca wetu jahannama ci wetu siraat naan rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim yàlla yërëmal sama xeet bi yàlla yërëmal sama xeet bi yàlla yërëmal sama xeet bi loolu yonente bi alayhi salaam gaddul ko aw xeetam ngir melokaan woowu borom guddi gi di alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla jox daraja yi gën a mat mu gaddul ay aw xeetam ay coono ak i tartar yàlla jox ko téere bi gën muy alquranul karim sëñ ma ndaag jàng na ko léegi waaye tudd na ci afaat ya lu ma ta bàyyi xel la sëñ Tuubaa nee na koo gis mu woon ginnaaw alxuraan juróom-ñaari gàkk-gàkk ko topp sanbun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunia itimaadin li xaliqaati kadaka doxfu yaqinin wa huwa wa sabauha bi taksir ibtidaati nee na ku am bakkaar doo bëgg alxuraan ku rëy doo bëgg alxuraan ku nuujar lu ci mpox doo bëgg alxuraan ku bari looy fenn topp ay bidaa doo bëgg alxuraan ku néew yaqiin doo bëgg alxuraan téere boobu la yàlla jox yonent bi ne ko téere bi wa anzalna ilayka alkitab li tubayyina linnaas ma nuzila ilayhim jox ko lis téere diine ji gën muy diiney lislaam xam ne boo nee laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah bakkaar boo mën a def doo mën a dem sawar laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mën nañ laa fóot nag fuddu ndigg ak jaaraloo la ciy béréb waaye laa illa allah muhammadu rasulullah ku ko wax mucc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal fi ko borom bi teg inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fi ne xoolal sallallahu ala muhammadin ni mu gàtte sallallahu ala muhammadin boo ko waxee benn yoon juróom-ñaar fukki bakkaar lañ lay faral ubal la juróom-ñaar fukki bunti balaa ku dul ab nafiq dana la bëgg sallallahu ala muhammadin xoolal ni gàtte kon ñaata salawaat moo allahuma salli ala ruuxi sidina Muhammad arwax wala jasadi fil ajsad wala xabri wala xabri fil xubur boo ko waxee benn yoon doo tabbi sawar ana asalaatu al ummi yi ñaata julli moo am yu dul jeex te yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla waajale loolu ci aw melokaanam wu mat ak jalokaanam wu sell yonent boobu it sallallahu alayhi wasallam melo yu mat yi ko yàlla jagleel ak cër bu rëy bi mu ko jox ci joxiinu biir boo demee ca am amdaax ñaata tagg nga fay fekk Serigne Touba tagg ko yonent bi wa innaka la ala xuluqin azim la jël araf wu rekk mu def ko fukki bayit ak ñaar kaja ko sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu def ci fatul fata fatul fata 28 lettres yi am yépp moom la jël bu nekk mu def ko juróom-ñaari bayit taggee ko rasulullah sallallahu di ko kañ nag boo demee ci muqaddamatul amdah dane ko nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidin xalilun xabibun mislahu laysa yu'lan moom la yàlla solo booy nabi rasulun moom la yàlla yón xayru abdin mooy gën gi jaam fa awha ila abdihi ma awha subhaana si asra bi abdihi laylan kon yàlla yonent bi al jaam bu mat bi mu sànn saggal ko boppam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam waaye nag ba mu nekkee jaamu yàlla it xayru abdin wa sayidin nee na mooy sang bi xaliilun mooy xaritu yàlla xabibun mooy soppeeb yàlla misluhu lay si yàlla sëñ Tuubaa nee na ku mel ni rasulaay kenn musu koo gis sëriñ Tuubaa dafa giñ ne billaahi giñ ne tallaahi mu ne billaahi lam yaati walaysa yaati maa ngi giñ ci yàlla mës na ñëw te du ñëw kan ku mel ni doomi Abdullahi muy Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñetti jamono am yépp sëriñ Tuubaa nee na ñetti jamono yu am yépp muy li wëy li teew li war a ñëw ëllëg ku ci mel ni yonent bi alayhi salaam du am xoola ku ñuy wax Musaylimatul Kazab Musaylimatul Kazab da doon naññ yonent bi di weddi diine bi ko Sëñ Tuubaa di attaqué dana dalla Musaylima ayna jara Musaylim torox na keroog bi muy dendaleeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam boppam daal na toroxtal Musaylimatul Kazab nag dafa mel ni ku fekk mbooloo mu toog mu simmee ko ba set càpp ndaay ci seen digg faj aajo tuur ndox ba mu bindee loolu ba nopp mag ñi dañ ne ko mbakke yow ne sa xalima xamuñu ci yoon wax lu mel nii Serigne Touba na ku xamul darajee sama sang bi di rasulullaay doo xam sama teggi ni xalima doo xam sama teggi ni xalima bëgg yonent bee taxoon moom sëriñ Touba egg na ci njéeréem gii ñu daan ko jaay ay rasul mu koy jënd ay rasul weñi rasul bu ñëwee rasul rek moom baatu rasulullaay bee tax muy jënd weñ yooyu bayit am aw bayit a ngi ni woo xam ne sayyidina maqdumuna muhammadin wa alihi wa sahbi rijalu samedi sëriñ tubaa nga ko doon firil ku ñox maam sëriñ Sil am sëriñ Sil jarbaatub sëriñ tubaa la ma nga dëkk ca turendu la boo demee ci majmuha ba ba nga ci sëriñ tubaa dana ko kaay ma firil la bayit yi muy sayyidina maqdumuna muhammadin wa alihi wa sahbi rijalu samedi daal di wurmbal maqdumuna na ko baamtul bayit yi nag daal na sayyidina maqdumuna muhammadin wa alihi wa sahbi ibadu samedi fee dana rijalu samedi fii mu ne ibaadu samad na ko ñee mooy malaaka yi teewoon badar ñii mooy nit ñi teewoon badar na ko maq duumu naa laa la bëgg a leeral na ko bi ma nekkee ci géej gi egg naa ci bëgg yonent ba bu ma naanee suukar du saf bu dee warga du saf bu dee kafe du saf waaye wa jaa ani bi kalimatin xadis taxare xidma zahiran batina na ko ca géej ga la ma yonent bi fekk wax ma baat boo xam ne man suuxal na liggéey bi saayil ak baatin yonent bi dane ma maa ataytuka haadihi l marra maa ataytuka haadihi l marra kon da nga ciy déggee ne yoon yoon ci Sëriñ Tuuba maa ataytuka haadihi l marra illa li ushrika yaa qadimi bi annaka ahabu min saati nafsi jërëjëf boo demee ci bayit woo fekk ko ci Sëriñ Tuuba dana ko yow ma xam sëriñ si la yonent bi dana ma sama yoonu tey mii li ma tax a ñëw dama lay yëgal na yow ahmadu yow laa gën a bëgg sama bopp man rasulullah maa ataytuka hadhihi al marra ila lu ushrika ya qadimi te boo demaatee feneen sëñ Tuubaa nee na muhammadun naa wa kaama bi maa yasuruna wala nulaama man yonente bi dama bëgg man Serigne Touba te lu ma bëgg ci la yonente bay taxaw man xadim rasul yemu ca it mu wax ne muhammadun anaa la lanal maraama ci yonente bi laa amee li may sàkku di ko bëgg moo tax bu weeru gàmmu ma saa teru ana xas yi day nga xam ne weeri gàmmu xasiday gàmmu yi muy tëj bokkul ak xasida yi muy tudde muhammadu muhammadu muhammadu rasulullahi jàngal xasida gu gàtt gi nga xam ne mooy lam yabdu mislal mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi doyoon na lam yabdu mës na feeñ mislal mustafa ku mel ni rasulullahi fil baraya ci mbindeef yàlla mës génn génne samad mais kilifa gi mës génn génne ku mel ni muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaye ca biir way woowee nag da caa wax ne yonente bi xidmatuhu li tax aw ma ayib man tubaa lan moo ma xañ ba aw ma ba xidmatuhu anil uyuba azhabat wal istiqamatu wa wahabat maanaam liggéeyal yonente bi moo ma tàggaleeg ayib may mag jub may mag sell may ma li ma doon sàkku waaye Serigne Touba nan lay liggéeyal yonente bi xam nga ñun léegi la nga dékku ne yàlla nañ liggéeyal Serigne tubaa ba am ngërëmam daa ko dugg àjjana dajafa ak Serigne Touba Serigne Touba nee damay liggéeyal yonent ba àjjana bu ñu demee àjjana ëllëg du ma fa toog ci biir àjjana di bànneexu maa ngi sàkku ci yàlla borom bi mu boole ma ci ñuy liggéey rasulaay ci biir àjjana xam nga axdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal muna wal minna loolu wóor na dama koy liggéeyal ba àjjana waaye nag waj'al ñi bi jaahi yi mi man yaqidimu fil janna bu demee ba na ëllëg ba ku ne na sa kër di bànneexu man Ahmadou Bamba bu ma nekk sama kër ci àjjana naa dem ci rasulaay dëkk ak moom di ko liggéeyal naa dem ba ca yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal bëgg yonente bee tax benn waykat maam Serigne Sylla mii ma la doon wax doomam jëne Serigne Mahmoud Sylla ba muy tagg Serigne Touba ci bëgg yonente bi loolu la ko wax adaba qalbuka hubbul hibbi yaa sanada fa xubbu xibbika yamxu xubbakal walada sa xol jeex na ci takk bëggatoo dara ku dul rasulullahi sallallahu alayhi moo tax bi mu ñëwee ci guddi gii dina ko jàngal nan la nu ko jàngale mu ne guddi dundal ko day aar ak njaboot day aar kër ihyaa mawlidil bashir yaxmil ayaal wa duyuur yaxmil ayaal wa duyuur tey buñ ne woon ku gas dara suul sa kër mu aar sa waa kër wala ku def dara mu protéger la sëñ Tuubaa nee na boo bëggee kaaraangeeg kër gu sax dak bëgg kaaraangeeg njaboot gu sax dak dundalal guddi gàmm ihyaa mawlidul bashir yaxmil ayaal wa duyuur day aar njaboot waaye day aar ay kër mu ne yenent bi mawliduhu muazzam mubaarakun muhtaramun tahsimuhu yanhatimu ala dawi taqaddumi gane jamonom ga mawliduhu mubarakun muazzamun mubarak luñ barkeel la lu màgg la luñ warmaal la màggal ko war na ñépp nan la doon gàmmoo moom Serigne Touba wax naa la léegi na la bind ay xasida wax naa la léegi na la li ko gàmmu jaral dane lii rab rabbi fii rab rabiil awwali maa raamahu walam yanal kulla wali yàlla jox na ma ci weeru ci gàmmu loo xam ne gaa yi baax yépp ko du amuñu ko ma am la jëkk a gàmmoo ba mu gàmmoo mbakke xoola ba mu ñëwee Touba yii muy taalif bi mu ci géej gi am na bis boo xam ne loolu Cheikh Abdou Samad sunu sëñ Cheikh bi nettali dama ko la gis naa mu nettali ko am na gàmm gu ko fekkoon ci gabon bokkul ak bi sëñ Modou Lamine Diop daga derte ci irwaa unadib nga xam ne ak ganaar la yor amul ko ko lottalal gisul ku ko jox gàmm gu ko fekkaat seen saatu la Sëriñ Tuubaa yor dem ca jaba ca marché ba weccikul ko boppam wute ko xalima ñëw di tagg yonente bi alayhi salaatu ay këyit nee na keroog muqaddamatul amdaax la doon taalif ba mu ne wasixtu bi rabbil arsh dil juudi wala afi ma al Moustapha wallahu lii muxli safi nee na yonent bi daa wàcc mbaar tiim ma lu ma bind yonent bi jox jibrilu jibrilu jox suñu borom lu ma bind yonent bi jox jibrilu jibrilu jox suñu borom ba ma agsi ku uusuka tasqini bi hada busharatin yonent bi dama jakk na ma am naa déeg boo xam ne man la ko yàlla faggul kenn musu caa naan déeg boobu laa bëgg nga ñëw naan ci tey ma béggale la koy xaadimu rasul nee ma sukk mu mel ni déegum noor ba ma siggee mel ni déegum cooroor jalaat déeg jamaat ji dara ma ku ma ma doon keroog xamoo la muy wét wét du tee xalimaam di daw di tagg alayhi salaatu salaam sëriñ tubaa nee laqad tabayyana li kulli sihtidaa an ibna abdallahi xayru muqtadaa nee na leer na képp ku am ak gindiku xam ne ki gën a mat a roy gën a mat a topp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tubaa nee na yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam tax na sama lépp kawe te ci moom laa yaakaare muccuk tey ak muccuk ëllëg lu ma bëgg ci yàlla ci rasulaay laa koy jaare bihi arum jamil xayri min maliki fa huwa alwasilatu fi sirrin wa fi alani bëgg ko ba mu koy tagg dafa wax ne daa midaadi xadaa xaaji li xidmati man tabshiruhu daral aaday ansaana sëñ Tuubaa nee na bu ma sëppee xalima gi di tagg rasulaay bég gi yonente bi di bég moo may fàttaloo lor gi ma nasaraan bi di lor lu luñ ko mën a def lu metti metti luñ ko teg ci coono lu mu tar-tar nee na ginnaw xalima gaa ngi tagg yonente bi alayhi salaatu salaam yonente baa ngi bég fàtte naa lii di ma dal du ma ko yëgati ndax loolu mu ne yonente boobu nabiyun nabiyun jàmmala laa daatahu yàlla moo rafetal jëmmam jë yonente bi alayhi salaam génn ci biir xolam lépp luy lënt loo xam ne muy rëy muy kiñaan muy mer muy bañ nit jëpp jikko ju naaw dafa dañ ci xolam Moustapha sallallahu alayhi wasallam bam jeex bokk xoolal kere bu yonent bi di ubbi makka ñu tudd ak fatu makka kere bi muy ubbi mag ñaata mbooloo la ànd ay junni junni junni junni nit fees del mu taxaw ci kaaba ga mbooleem naa arab yëpp wër ko mu ne loo leen jot ne moom laa leen def tey jii ñoo ko génne diggante Makka ak Madina presque quatre cent cinquante kilomètres daf koy mat mu génne Makka ñëw Madina dem ba am kattan dil siwaat Makka na loo leen jort ne moom laa leen def ñu ne ko mbokk mu baax doomi mbokk mu baax mu ne leen idhabu fa antum tulaqa dem leen boyal nañ leen jéggal nañ leen Sëriñ Tuubaa nag dafa am jikko yum donn yonent bi nuru ko ko bokk na ci am na ko ñuy wax dox fuur dafa fekk yonent bi tëdd mu tiim ko ak jees na ko kan moo dox sama diggante yow ma rey la yonent bi na ko yàlla yàlla muy lox ba jël si juróot yonent bi jël ko na ko ku dox sama diggante yow ma rey la mu ne ko mbokk mu baax doom mi mbokk mu baax yonent bi na ko jéggal naa la mu ne ab sanga ngi ni dem ñëw tàbbi ci lislaam dox fóor moomu mën ngaa jël mbiram nga dendale ko ca ku ne wax naaj yi ca gànnaar naaj tubaab yi dañoo jël juróom fukki junniy dërëm ngordu na ko moom lañ lay fay waaye condition bi mooy dañ lay jox jeesi ju ñaw fexeel ba bett sëñ bi dog bopp bi avance ko ñaar fukki junne juróom naa di ñëw jébbulu ci sëñ bi def bëgg a def coup d'état bi tax mu jébbulu di root di rang keroog bi mu jébbuloo rek sëñ Tuubaa bind ilaa siwaa yadurruka seytaanu maa lahu maa alayya min sultaani man kat pexem buur ak saytaane jëm si yut ci man yàlla ak rasulaay ñooy sama xarit bañ nañ ko ma lool na ko deel jàng sóoratu Yaasin te jàng bayit sëñ bi nee na lu jublu ci jàng Yaasin gi mooy bu demee ba bëgg def li mu def mucc moom xoola loolu bu demee ba bëgg a def li muy def ñëw di ma lor si mucc ku la war a coup d'état yow nga koy wut lu ko aar na ji bàyyi ba guddi jot mu simmeeku ndax jàpp bu doon sëñ bi ay raawaan la yor mu simmi ñu daw mu départ ak jeeseem bi mu ñëwee dóor jeesi ji buumi xayma bee ko téye loxo bi di yendaar mag ñi daw génn ci jàkka ji ñëw song ko daaneel ko laa taqtuluhu laa taqtuluhu bu leen ko rey daal di dugg ci biir génn ci gaalam ñaar fukki junne juróom xam nga ñaar fukki ak juróom lañ ko avance war ko dolli ñaar fukk ak juróom sëñ Tuubaa waññaat ñaar fukk ak juróom teg ci loxo mag ñi ne leen yóbbu yóbbul ma ko ba ca poste ba ca xumaag waaye bu ko loxo laal bañ génnee ku ñuy wax sëñ Maxtaar Penda Jeng <clears throat> sëñ Maxtaar Penda Jeng mooy maam yi sëñ Cheikh Fall benn doom la benn doom la am sëñ maxtar Penda mu jigéen mooy way juru sëñ Cheikh Fall amoon na ay doom waaye lu ko ko xañ sëñ Maxtaar toog ak Sëriñ Tuubaa ci kër gu sedd guy sëñ Tuubaa nag keppaar gii de lu ci neexoon mooy loo am mu dem dooñ suul mu ne tippoo naa ko lu ma am na dem maa tippoo loolu ginnaaw sëñ bi nee na bu ko loxo laal bañ génnee sëñ Maxtaar Penn ne sëñ bi nee na bu ko loxo laal daal di lijjanti ay yar yu baax laal naa ji ba yaram mi dagg bi ñëwee na ko mbakke nee nga woon bu ko kenn laal waaye naa ji xaw na ko rek mu ne sama loxo laalu ko da nga ne woon bu ko loxo laal ay yar laa yoroon laalu mu sëñ bi ne ko yow kaay ma wax la foofu yaag sama borom yéene yem foofu nunguur ko jëm sama jëmm ji loolu ko sëriñ bi toll ko jëm ci sama sama jëmm ji sëñ Mat Lamin Jóob Dagana nee na dem naa ba bokk ak naa ji moomu saxaar ci Thiès ma bëgg ne ki lor sëñ baa ngi nii ne ba yàgg ma ne bu ma ko waxee lan laa doon na ci sëñ Touba xoolal jikko yu baax yi mag ngi doon doon loolu lañ doon ci yonente bi alayhi salaatu salaam melawoo ko yàlla jagleel ci nga xam ne bari nag xar baax ki ëpp ay karaama ki xar baax mooy yonent bi alayhi salaam doon ko ne alquran mooy mucjise bi gën a rëy waaye li ko yàlla jagleel ci ay teraanga moom alayhi yooyu ko yàlla jagleel bari na ci yoo xam ne lu ci nekk feeñ ni ci Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax da koo nuuru saa kaxtafal muxtafa xatta ka annahuma lawlaa nubuwat saa sawbaani xad na sa jaar moo tax defe naa 21 22 la sañ Cheikh Thioro génn àdduna sëñ Cheikh Thioro rakki Serigne Touba moo moo way bayit yi bi mu génnee adduna Serigne seex ma Massamba Mbacké la yebal mu dem Ndar sëñ Massamba di jàng mag ñi di jàng xasida yi sëñ Touba ko nettaliwaat ñuy jàng xasida yi riir mi bari lool góornóor mer bëgg jàpp mag ñi tëj leen Serigne Touba moo ne seex ma Massamba jamono bi loolu di am Mouhamadou Rasulaay moo ñëw fii na ma neel Massamba feeg mi ngi jàng xasida yi di ko jàngal lu am gàcce ak adduna doom gàcce ak fekk mi ngi jàng xasida yi di ko jàngalu du am gàcceeg adduna du am gàcceeg àllaxira ci xasida yooyu ñu yëkkati ci kanam ak di ko jàng te lépp di tagg yonent bi alayhi salaatu salaam xoolal ni mu ko tagg ci mawaahibu naafi'ati turam saakal muniiru saakal bashiiru lahu ushiiru bi sa sanaa'i di ko kañ te du ko tudd boo demee ci jësbul xuluub xoolal ni mu ci tagg yonent bi alayhi salaatu salaam huwa si faa siwa min al baraya bi huda xata bada kat bu sama fi arsika al muadimi kañ gi mi kañ alayhi salatu salaam ci melokaan wu ne waaye li mu koy tagg tagg da ko donn ci jikko lakinahu walisa al muxtaara fi amalin wa fi maqaalin wa fi xulqin wa fi siyeeri dafa donn yonent bi ci doxin donn ko ci jikko donn ko ci melokaan doxin na ma yow sa doxin jëfin na ma yow sa jëfin waxin na ma yow sa waxin ngirëm nga teg sa tànk dafa donn yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax boo demee fii ci dénkaane yonent bi lu yonent bi dénkaane bu sëñ Tuubaa ñëwee loola lay soññee wat moo tax bu ne gàbbu ñu ne biddaa bu ne màggal nit ñu ne warul bu ñu ne topp nit ñu ne kenn du ko def fekk ñàkk dégg ak ñàkk xama ko waral ku mënta gàmmu rek jërul ngay tabaski bu yonent bi ñëwuloon dara du waraabal ginnaaw moo tax mu aadama li muy mag mag sujjóot gi ko iblis doon sujjóotal lu ko waral leeru rasulaay gi ne ci moom a tax leer gi yàlla tën te aadama doon maamam leer gi ne ci rasulaay moo tax yàlla na iblis sujjóotal moo tax bi mu gàntalee mu tëkk ko li man lam tasjud istakbarta am kunta min al aliin lu la tee sujjóot da ngay réy réylu am na nga bokk ci ñu kawe mu ne ko ana xayru min maa ko gën suñ borom na ko lu tax mu ne ko xalaqtahu min tin wa xalaqtani min naar moom ci bat nga ko bind bind ma ci sawara mu ne ko faxruj minha fa innaka rajim génnal tëkku naa la dakku naa la génn naa la sama gouvernement dàq la mu ne ko fa bi izzatika la aghwiyannahum ajmain yaa ma def nii doomu aadama tax nga déteste ma doomu aadama tax nga toroxal ma danaa leen kar ñoom ñëpp yàqal leen gàllankoor loo digle duñ def loo tere duñ bàyyi suñ borom na ko may defal xaq wal xaq aqul la am na anna jahannama minka wa min tabiaka minhum ajmain danaa feesal sawara sa kaw ak ku waaye xamal na nag yow iblis inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam ña dëgg-dëgg sa baaraam jotu leen moo tax keroog bi Sëñ Tuubaa jàmmaarloog iblis ca jeewal jël bayit yu jël aaya bi inna ibadi na ay min ayyesa minnillahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu bi yaa wali xoola fa mu dellu woon ginnaaw yàlla ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam ñu jotoo leen sëñ Tuubaa ne bi sama maarub jéeg fas bi ne tel iblis laa seen muy xawi ko naan kii kenn doyu ma ci maa ngi koy songal sama bopp ma ne ko doxale naa yàlla sama diggante yow bayit wi lay jël ay yeesa minnillahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu bi yaa wali ba muy jeex gis naa naajaytuhu